yàgg na ñun yàgg nañ toog fii di wax ne parti socialiste dañu war a nangu ne xalifa taxaw dañu am base taxaw dañu yàgg gagné depuis 2014 ba tey donc waroon nañu mun ñoom bu yàgg récupérer taxaw boolewaat leen ci seen biir ah c'est vrai Adama doon nañ gën a am chance pour pour Adama témoin depuis démb ba tey sax des amis m'a dit Sanu ñu ngi ci évaluation te xam nañ sa sa franc parler dinaa ci wax xëy na sa wax bi dina la coow mais dina tax ba dem ubbi débat bi parce que en vérité ah. c' est comme ni nga wax ah c' est la boo xam ne métti na trop la ko waxoon rek métti na on <laughs> mhm, mhm. Mhm. taxaw à 1,56 pour cent del quatrième national ku la wax ne. méttiwul day wax ko na moom. maintenant waxtaan baa ngi jëm. mais xëy na su ma noonu xam nañ ma et je m'en excuse xam na tout sama wax dina déranger mais dina am chance ñu song débat bi. ñu mhm. waxtaan ci génn ci quoi. parce que défaite boo amee moom moi j'ai la chance d'être un dama koy analyser c'est c'est Khalifa c'est Djibo Ka qui nous que un homme politique su bañee ko ko nax quand il des analyses na ko def froidement rek. Mhm. Mhm. parce que nous sommes minoritaires par rapport à l'électorat. donc euh, li sanu xalaat di ko nëbb xëy na xale bu ndaw mu ngi ci koñ ba toog xalaat ko de déglu donc bu ñu tojul affaire bi rek du sotti Adama il a raison Adama il la raison c'est que objectif bi mooy la recomposition de la famille socialiste à à, à commencer par parti socialiste. Mm-hmm. ñun commencé nañ ko nag. Mm-hmm. Khalifa Sall Aminata Mbengue ñu ngi dox. ñun au niveau de l'assemblée ñoom ak ñoom Cheikh Seck ak ñoom yaay ñu ngi waxtaan c'est enclenché parce que amuñu benneen solution. Mhm. taxawu ni mel nii. Mhm. du dem parti socialist ni mel nii tamit dem te boo moytuwul nag. Mhm. ñii seen seen seen accession au pouvoir dafay yóbbu ñu bëri à la retraite. tout li la mën a sauver mooy nga réorganiser wu réadapté wu xam ne politique bu njëkk ba ak léegi du benn. bokkul y a une génération qu'il faudra encadrer. Mm pour lui seen de la place tout en les accompagnant. Hmm. analyse bi bon wax ngeen ko saa a commencé avec avec Yewwi mais man li ma ciy wax ci analyse boobu waa taxaw waa Pastef yi dañ ne waa benn waa taxawu la waa taxawu ne non chart bi dañ na woon bu ñu defee local def législative présidentielle ku nekk ci seen erreur fii laa koy waxee. ils ont xam nga maturité politique jëbokaat ne woon na ma ki mën fay rek mooy lab. ki mënul fay mu ngi ci rivage bi. Mhm. man je suis d' accord bi ñuy defar conception bi ñuy concevoir le le le Yewwi dem local dem législatif parce que boobu kenn xamul sa sa moom noo toll mais on a fait du chemin. Mhm. bi ñu defee local def législatif liggéey avant ñu doon engagé trois waroon def toogaat évaluation ne est ce que li ñu waxoon. c'est d'actualité ou pas nit mun nga tracer dara au début. Mm-hmm. en cours de de parcours nga gisaat beneen réalité attention li ñu waxoon escale de ren léegi bu ku nekk demee ak sa kii ak pouvoir bi ñu jàkkaarloon nii ak tout ce qui s'est passé ak une réalité qui s'est dégagée. Mm-hmm. au début Khalifa sa c'était le président de la conférence des leaders wax dëgg yàlla li mu li mu yor ci expérience ci ci jëm yépp moom moom rek ma doon doon mais en cours de chemin je vous donne un exemple boo demee ci manifestation c'est le leader qui parle le dernier. oui. Mm-hmm. tey bu tey am na manifestation yoo xam ne Khalifa moo doon mujj a wax. Mm-hmm. mais bi demee en cours de chemin dañ ko corriger. Mm-hmm. bàyyi Sonko di mujj a wax. parce que mbooloo bi daan ñëw quatre-vingt pour cent yi moom la woon tey leader bu ñu koy wax rek Sonko bu ñu koy wax moo moomatuñu dañ jóg dem. mais. on s'est réadapté on a corrigé ñu bàyyi Sonko muy xam nga loolu grandeur la du question faiblesse. Mhm. mais Khalifa a garde sa responsabilité de leader. mais bàyyi dans la pratique bu ñëwee def bi ñu demee ba def des erreurs mais gis nga man du may nangu bu ñu àndee di dem ñu dem di dem bu ne ma ci biir su ma xamee ne yaa ngi ko doole su ma xamee ne nii ak nii dañuy toog waxtaanoo gars yi kaa ñu waxtaanoo je disais que Yewwi au lieu que ñu xuloo ci dem dialogue ba ñu dem dialogue déedéet. bi ñu paree dañu waroon toogaat. Mhm. ne li ñu waxoon est-ce que ku nekk dem Déthié Fall dem kii dem Gakou dem xalifa dem est-ce que loolu suñu intere la. Mhm. déedéet. boo ko leen defee erreur man dàqu ñu ma politique ñu ma ci politique je l'ai refusé à l'Assemblée nationale. Mhm. dama ne dañu waroon toogaat. xool réalité yi. Déthié boo demee doom dara. Malick Gakou boo demee doom dara. Khalifa c'est pas c'est pas évident. yow yaa Pastef on na affaire en un à. au pouvoir au pouvoir. le plus souvent le pouvoir part au deuxième tour. bu demul premier day dem deuxième tour. donc opposition bi ñu ñaar dina am kanam ñu waxtaane ko bu dee dañuy d'accord ñëpp dem ci xalifa wala ñëpp dem ci Sonko ñu waxtaane ko mais xam ne bu ñu tasaaroo du ñu am dara. le pur mën nga ko nangul parce que le pur dafa am électorat boo xam ne. ñoom fixe la ñoom du affaire. ko bàyyi sax mu creuser mhm. comme ça deux à passer yéen war nañu éclater bi mooy dialogue mhm. tension am te Sénégal toll boo xam ne soo contrer Sonko rek tu es du pouvoir mhm. dal na fi ñoom Déthié dal na fi ñoom euh, Abdourahmane Diouf ak yooyu y avait deux camps l'opposition incarnée radicale man dama daa ñëw su ma waxee ñu ne ma fee foo bokk mais vous pensez que ne quand on est radical rek on est on est de Pastef mhm. naa ba am problème bi man sa sama biir quoi. Mhm. parce que ou bien tu attaques. y un moment à l'Assemblée Omar Cissé de de de Rufisque quand il a sur le pouvoir gars yi dañoo génn salle bi donc sa gars yi xamuñu fu mu bokk man gars yi bu ñu nangu loolu. Mhm. nous nous de l'opposition. à moment donné nag quand il y a eu cette chose les gens nous ont classés du côté du pouvoir. les sorties de Barthélemy aussi. contre Sonko mu mel ni. donc y' a une autre opposition à Sonko. Hmm. loolu indi ñu problème bon avec Diomaye c' était pire xeex bi ñuy xeex ak. waay nga dem ci ay meeting. taxaw di xeex ak euh, F24 wala di taxaw ak Pastef la Ouais. les gens nous hmm. dans le cadre du loolu mooy dëgg. Hmm. loolu mooy dëgg Adama métti na. mais à un moment ñun suñu résultat on a un électorat qui est là mais comme que ñoom bëggoon nañ daaneel Macky Sall. da ngay dem nit sax mu ne la yéen mais yéen seen yéen fu ngeen bokk fu ñu bokk lu ci opposition bi. Hmm. parce que ñoom yaakaaroon ne opposition Sonko la. waaw ah. ku xeex ak Sonko rek tuuti am na nga sànq. man loolu tey man sama position gëm naa ne position boobu. moo ñu hmm. yàqal lu bëri bëri. Hmm. c'est difficile le parti social maintenant mooy suñu suñu salu ah on y travaille. maintenant est on qu'on aura de l'opposition mais on sera de l'opposition mais une opposition c'est pas une opposition dès la première année. Hmm. opposé première année yooyu man li ma gëm Sénégal mooy opposition boo xam ne di nga jàppale pouvoir bi ñu réussir mais nag ah, en étant comme ni ko Adama defee des hommes d'alerte. Hmm. li bu baaxul ñu baax na mais bu baaxee dañu accompagner ko. Hmm. bu baaxee moom dañ ko accompagner parce que la réussite. fi ñu toll nii Sénégal fi sonn bi ñu sonn nii nan ñaan yàlla ñi réussir. bu ñu réussir rek ñu sonn. dinañ gën a sonn. dinañ gën a ah, ah, nañ ba pare. ça veut dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale comme liñ jot mooy il faut les accompagner. Mhm. pas accompagner leen sax mais ñaanal leen yàlla ñu réussir. Mhm. dépp fépp foo xam ne yaakaar nañ ne buñ ci jàppee mu baax. mooy réforme yi à faire toutes les réformes. mu a nekk affaire de. bu nekk xëccoo quoi nañ defoon réforme yëpp. mu nekk ma euh, Diomaye sa première année deuxième année nañu réformer tous les textes. Mhm. tu as vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. ci fais une élection ñëwaat à l' assemblée nationale tu problèmes su ma leen assemblée